descendant devant le peuple. En dépit de la répression violente des forces de sécurité, officiant aux côtés de la milice politique privée, recrutée et armée par le, par le, parti au pouvoir et ses alliés de Beno Bokuyakar. Cette répression aveugle et disproportionnée a occasionné la mort de plusieurs Sénégalais froidement abattus. Le mouvement de défense de la démocratie regrette profondément ces vies perdues et invite tout le peuple sénégalais à prier pour le repos de, l'âme des martyrs. Leur mort ne doit pas être vaine. Des dizaines de manifestants ont été arrêtés et brutalisés, souvent par des individus anonymes n'ayant pas l'uniforme des forces de sécurité, comme c'est le cas de, c'est de Tchad du mouvement de Yanamar et de beaucoup d'autres jeunes. Incapable de sentir et comprendre les pulsions profondes de cette jeunesse désemparée, parce que trahi par son gouvernement corrompu et inacte, Macky Sall s'est caché derrière son ministre de l'Intérieur, M. Antoine Diom, pour insulter tout le peuple sénégalais en taxant cette vaillante jeunesse de terroristes pour faire plaisir à certains de ses parrains étrangers. Le propos bonité. Le ton martial et la rhétorique guerrière employée par ses ministres cachent pourtant mal son profond désarroi et sa peur panique qui transparaissait à vue d'œil sur son visage, sa gestuelle et son langage corporel. Le M2D voudrait attirer l'attention des Sénégalais et de la communauté internationale sur le fait que les actes de pillage et de saccage de biens publics et privés, quoique regrettables, sont la résultante de deux facteurs d'une part, c'est un réflexe de survie d'une population affamée, humiliée et frustrée de voir les richesses de la nation confisquées par une minorité. Ces milliers de jeunes qui affrontaient la mer et le désert pour rallier l'Europe au péril de leur vie n'ont évidemment rien à perdre et ont vu dans ces manifestations à la fois un exutoire et un moyen de trouver de quoi vivre pendant quelques jours pour faire face aux rigueurs du couvre-feu et de la pandémie. Au moment où ces jeunes souffrent des effets économiques de cette pandémie, les vaccins qui sont destinés à leurs vieux et aux pauvres parents sont détournés et distribués en priorité à quelques privilégiés de la République de Macky et à leurs familles et amis. En second lieu, une partie des pilleurs pourrait parfaitement être des éléments de nervis et de casseurs recrutés et payés par le régime de Macky Sall et ses alliés pour commettre des forfaits afin de les attribuer aux défenseurs de la démocratie dans le but de ternir leur image et discréditer la lutte. Mais c'est peine perdue, car nul ne se trompe plus sur le véritable visage de Macky Sall. Le MDD voudrait rappeler qu'un régime hors la loi, qui s'est permis de sortir nuitamment le députés et prisonniers politiques Ousmane Sonko de sa cellule, pour le conduire à une destination inconnue avant de le donner au juge Sambassal qui, à son tour, l'a interrogé sans ses avocats et mal placé pour donner des leçons relatives au respect de la loi. Le haut commandement de la gendarmerie nationale est invité à refuser que cette institution prestigieuse et respectée qui fait la fierté de tout le peuple sénégalais ne soit manipulée et utilisée contre le peuple le MDD invite la communauté nationale à comprendre que, les quelques heures d'enlèvement de Ousmane qui ont pu, qui ont, de ont pu permettre à ses ravisseurs de lui faire subir, peut-être inconsciemment, toutes sortes de preuves de nature à accréditer leur ville complot. Une telle pratique viole le protocole de la CDAO et rend nulle toute preuve collectée durant cette disparition organisée complot abject qui fait du corps de la femme un simple instrument politique doit être dénoncé partout dans le monde, notamment auprès des organisations féminines luttant pour les droits des femmes. L'MDD voudrait dire à l'apprenti dictateur Macky et son ministre de l'Intérieur que les menaces et intimidations resteront vaines et inutiles et n'entameront en rien la détermination du peuple sénégalais à se battre pour préserver sa démocratie, très chèrement acquise. L'AMDD félicite la jeunesse sénégalaise, lui réaffirme son soutien et appelle le peuple sénégalais, dans tous ses segments, à poursuivre la mobilisation et la lutte pacifique en usant de tous les moyens constitutionnels pour refuser la dictature de Macky L'AMD rappelle que le mot d'ordre reste maintenu et rappelle ses ses exigences. La libération immédiate de tous les prisonniers politiques illégalement et arbitrairement détenus dans les prisons de Macky Le rétablissement immédiat des signaux de télévision de WALF et saint La reconnaissance et le respect du droit du citoyen à la manifestation pacifique conformément à la Constitution l'ouverture d'une enquête pour identifier, juger et condamner tous les individus mêlés de près ou de loin au complot sordide et a conduit notre pays dans cette crise grave et dangereuse. Après ce qu'il a, pu subir, ce qu'il a subir au peuple sénégalais et son entêtement démoniaque à persister dans, dans l'erreur, au risque de poser encore la mort de nombreux autres Sénégalais, Macky Sall a perdu la dignité de rester à la tête du Sénégal, car nous sommes un pays de paix et de mesure. Le MDD appelle le peuple sénégalais à descendre massivement dans les rues de Dakar et dans les régions, départements, communes, villages, pendant trois jours à compter du lundi 8 mars, jour de lutte et d'affirmation des droits des femmes, qui seront invités à sortir et à marcher aux côtés de leurs enfants, leurs petits-enfants, et à les aider dans leur quête d'un avenir meilleur et nous disons résistants. Merci vous. place, vous

Ah, te démb tam ministre de l'intérieur addu ah, muy nii nii fan yi passé gis nañu réew mi yëngu na réew mi te tamit xale yi dañu jóg citoyen dañu jóg taxaw ni dañu bëgg a taxawul senegal taxaw pour protéger suñu démocratie ndax Macky Sall ak gouvernement am dañu ñëw faaletuñu senegal yi respecté wuñu leen malgré li nga xam ne ni ñaa ngi taxaw di wax di ñaan jàmm mais di taxaw ñu ne dañu bëgg dëgg ci ak yoon am fi ñu ngi nekk

dafa dafa ñaawlu loolu ñaawlu na ko ndax ay bakkan wadd nañu te ñu ngi ñaan sénégalais yi ñu taxaw taxaw ñaanal d'abord ñi nga xam ne ñu ñàkk seen bakkan te taxaw tam ndax ni ñàkk bakkan boobu ñu ko ñàkk mu doon loo xam ne du ñu lu ñuy fàtte du loo xam ne dafay nekk rek euh, jëf ju am ak lu ñaaw te du am te kenn du taxaw def ci dara ñu ni nag euh, manifestant manifestant yu bare jàpp nañ leen gaañ nañ leen dóor nañ leen dégg nga te ñi ñi ko def ñi ay nit lañ yoo xam ne dañ leen fay jox leen ay gànnaay ñu sol ñu ànd ak police te yore ñu uniforme ni ay police wala ay gendarme nekk ci dëkk bi di faagaagal citoyen yi gis nañu li ñu def caat du mouvement Maman Y en a xale yu bare dóor lañ leen gaañ nañ leen te te loolu warul am ñu ni tamit euh, Macky Sall euh, yaakaaroon nañ ni lii bu amee population xam nañ Sénégal nga xam ne li fi ëpp ay xale lañu ay jeunes lañu bu ñu taxawee taxawaayu taxawaayu bañ taxawaayu aar suñu démocratie moom waroon na taxaw tey waxante bi réew waaye dafa làq ci ginnaaw premier ministre am Antoine Diome moo xam ne taxawaayam bi mu taxaw est dafa ànd ak arrogance cest euh, dafa doon dafa mel dafay dëggaate ñi nga xam ne ñàkk seen bakkan ñun nag loolu du ñaaw la te ñu koy ñaaw ndaxte xale yi doon xeex tey ay sénégal lañu duñu ay terroriste ndax tàmm nañu nag képp koo xam ne yaa ngi taxaw ci réew mi di taxawal ak ak yelleefu doomu aadama rek ñu mën a yàq sa der tuddale terroriste mën la faagaagal te loolu duñ ko nangu loolu ñaaw ndax ñoom li leen li leen intéressé mooy waxanteeg seen seen seen njiit ci bitim réew di xam ne ñooñu la gis ñooñu la respecté ñooñu ñooy seen i kilifa ñun nag Antoine Diome taxawaay ak waxam dafa nekk wax bu ñaaw wax bu ko xam ne ki da nga mel ni da nga nekk ci génn waxuloo ko sa waxuloo ak sa sa waa réew waxuloo ak sa wax say ndawu réew donc dafa mel ni moom daal dafa sa taal safara yokk euh, solle sotti sotti euh, pétrole ci safara buy tàkk waxul waxu jàll waxul waxul daal gis nañ ci yaramam te waxinam ni wax wax euh, kàddoom yi du kàddu jàmm mais nag ku ko xool ba nga nga saytu ko nga xam ne te moom ci boppam tiit na parce que kenn mësul gis ci Sénégal ñun nag dañu bëggoon woo Sénégalais woo communauté internationale pour que ñu ñu seede li nga xam ne moo am Sénégal yàq bi ñu nekk ñi koy yàq di ko yàq bien public di ko yàq bien bien privé yi ba ko takkal xale yi bëgg ko takkal citoyen bi ñu xam ne ñoom ci seen bopp dañu fay ay nit sant leen ñu def loolu loolu lañ ko war a gis waaw ñu ne nag loolu li ko waral ñaar yëf la xale yi tamit daw gi ñuy daw di wut ay ñam di jël ay suukar di jël ay ceeb ay pepp ñam di ko jël di ko lekk di ko di ko jël bu ñu dajee sax ay ay ay magasin loolu muy firndeel mooy ne Sénégal yi dañu xiif xale yi dañu xiif xale yi dañu sonn xale yi dañu mar xale yi dañu leen toroxal te alalu réew mi te réew mi am alal ju am am alal la réew mu am alal la mais alal ji fépp nit ñoo dajaloo yor ko tey ko seen loxo di ko bànneex ko di ko jëfandikoo di ko luubal bàyyi population bi bàyyi xale yi te loolu moo tax boo gisee xale yi li ñuy def li nga xam ne kon pour population bu xiif moo fi nekk ñu ni nag junni junni xale yooyu nga xam ne dañ daan dem ci géej xool ata géej gi ni mu tolloog ni mu lëndëmee ni mu ñuulee dégg nga ñeme ñaa ko jàmbaar la dugg ci naan ngéen ñi ngi wuti xuju ak wuti leneen feneen tey jii ñooñu yëpp ñoo dajaloo ak ñi nga xam ne amuñu liggéey amuñu luñ def ñoom ñoom ñoo taxawlu tey ñu dematuñu Europe dañuy taxaw xeex pour seen démocratie dañuy taxaw manifester parce que loolu am tey parce que sës nañu loolu nag mooy li nga xam ni moo am tey ci Sénégal boole ci nag dañu nekk ci mbas mbas moomu dañu leen tëj génnuñu liggéeyuñu te xam nañu guddi gi dafa am économie guddi yoo xam ne ñu guddi gi rek la ñuy yàqal di liggéey liggéey loolu yëpp Macky Sall mi nga xam ne dafa yokk ci Sénégal ndóol mu metti ko dafa tar avant yi am ndóol avant ñuy am euh, mbas mi dafa amoon ndóol bi war a gën a amoon mu gën a yokk nag kon loolu yëpp tax na ni Sénégal tey dañu war a xoolaat ni lii am tey Macky Sall dafa waroon taxaw jóge ci euh, donkaasam bi mu toog mu wax teg Sénégal jàkkaarloo nag ñoom jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan jàll leen da xool na la mooy taxawaay mais def ko ñu xam ne tamit leneen li nga xam ne nii moo tax ne xale yi taxaw mooy ni que dafa am ñoo xam ne dañu dañu génn di yéem a yàq réew mi te xale yi di biñ gisee loolu daf leen gën a révolté parce que xam nañ ne Macky Sall bi mu taxawee mooy ne dafa taxawee non seulement pour réprimer nit c'est-à-dire pour duma nit ñi mais tam dafa jël moyen de l'état fay ay nit ñu bërbatiku di jël di jël moyen yooyu nga xam mooy suñu alal mooy suñu koom-koom mooy suñu xaalis ñu ci fay leneen ñuy jur nit ñi pour pour ñoom ñu xam ne nag léegi Macky Sall cellule bi nga xam ne li nga xam ne ko taxawal mu ñëw indi indi indi euh, Samba Fall bi nga xam ne mooy juge bi nga xam moom la taxawal tey jëf di ñu def ñaan parce que ñoom tey dañuy jàggati yoon jàggati yoon mooy ñu jël nañu Ousmane Sonko mi xam ne dañ ko seen loxo ñu waroon ko protéger parce que ci seen loxo la leen ñu génne ko ko di ko wëre wërale ko ci dëkk ba ay avocat yëguñu tinuñu fekkewuñu kenn xamul lan la ñu def ci moom kenn xamul lan lañ ko jaaral di doolu di saa jalgati démocratie la jalgati yoon jalgati yoon la jalgati justice la kon ñoom ñoo ñooy jalgati justice ñu ñuy ñoo jalgati justice ñuy wax nag tamit ñi au commandant de la gendarmerie parce que sénégalais dañ Sénégal dañ sénégalais sénégalais sénégalais groupe mouvement d communauté sénégalais

ñu nag ñu ni léegi leneen li nga xam ne tam dañ koy dénoncé mooy li nga xam ne li dictateur yëpp dañu koy def moo ni jël jigéen jël yaramu jigéen mu di ko utiliser comme jumtukaay jigéen jël yaramu jigéen di ko utiliser comme loo xam ne dañ koy xeexe ndax loolu la ñu def tey te lool xale bu jigéen boo xam ne dañ jël bëgg a jël yaramam ak jël yaramu jigéen mu nekk seen arme bu ñu parce que xam nañ ne siif ku ñu ko takk ci sa gannaaw rek teg nañ sa gannaaw lu ñaaw te jëfandikoo jigéen la ñuy jël pour def loolu lan la ñu ay yaay ay maam lañu ay mag lañu ay bàjjan lañu dañ koy ñaañi suñu doom yi suñu càmm yi tam ñu koy ñañ ndax lu ñaaw la te loolu am loolu loolu rafet ñu ne bi dafa bëggoon tey wax ni Macky Sall bu dee dafay jàng nekk dictateur mook ministre am nañu seetaat seen bopp parce que intimidation ak menace dootu Sénégal Sénégal yi nit Sénégal yi a muñ nañu Sénégal mën nañu bu ñu bëggee faagal seen démo faagal seen démocratie ak seen liberté bu boobaa ñu taxaw seen bopp bu baax dañu xam ne lii du continuer suñu ñu ngi félicité nag jeune sénégalaise parce que tey ñoom demoon nañu ba yaakaar ne sénégalais dañ naan làkk rek tëdd lu ne ñu teg leen ko ñu muñ ko mais gis nañu tey ni ba ñu demee ba dema dem ba ñu ëpp tuuru xale yi war nañ leen du ëpp tuuru kon nag ñoom ko dégg te ñu jëf te ñu jëf jëf jëf jëf digaale juróom dañu bàyyi droit xam ne ñoom di ko ŋaañ di ko di ko di ko di ko faagal ñu ni nag suñu mouvement bi dafa ni dañuy demander dañuy demander dañuy exiger dañuy ni dañuy bëgg léegi léegi léegi saal Sall mu libéré Macky Ousmane Sonko mu libéré prisonnier politique ñi nga xam ne dañ leen tëj dégg nga dañ leen saagaagal te defuñu dara ñoom ñëpp nañ leen génne ñu bàyyi la ñu dem seen yoon ñu ñëpp seen yoon dégg nga nag nag signaux yi nga xam ne ay télévision la seen TV ak Walf Walf TV nga xam ne dañ leen jàpp jël seen ay signaux tere leen ñu mën a liggéey ndaxte rek dañ doon reporté li am ci dëkk bi mais ñoom seen liggéey rek lañ doon def

kenn mënul génn kenn mënul jàll kenn mënul manifester doo moom manifester lañ ko ma yoroon kubbili ko yoon muy manifester ba mu ñëw tey toog ci réew mi jite ko kon nag dañu ne nañu bàyyi Sénégalais yi bu ñu ba am lu leen ndax bi ñu dox paisiblement ci jàmm ak salaam loolu suñu droit la ñun tamit dañu bëgg ñu enquête li fi am ndax li fi am jar na enquête kuréel ci senegal ak kuréel yi ci bitim réew ñu ubbi leen bunt bàyyi leen ñu enquête ñu teeñ enquête ministre yi fexe na ñu fi nekk enquête tam faagaagal état de droit bi nga xam ne ñu ngi koy faagaal c'est-à-dire ak ak yelleefu doomu adama yi nga xam ne ñu ngi koy jël di ko yàq di ko nangu di ko faagaagal ñu enquête ko ba ñu xam ne responsabilité ci kaw Macky la tegu tegul ci kaw peuple kenn du fi terroriste kenn du fi sàcc kenn du fi nit ku bon Sénégal yi jàmm la bëgg Sénégal lu baax la bëgg te loolu lu baax la mu doon ñaan ba ñu fal ko loolu la ñu bëgg ñu ñu xam ne donc loolu yëpp bi mu amee dañu bëgg ne Macky Sall ñu ko naan na bàyyi Sénégal yi

taxaw altine talaata àllarba am nañ ci droit dañuy woo Sénégalais yëpp ci capitale yi ci région yi ci commune yi ci village yi fu nekk ñu génn altine talaata àllarba taxaw waxanteeg Macky Sall xool ko ci bët wax ko ni ko doy na doy na doy na du ñu nangu mu faagaagal suñu réew du ñu nangu mu taal Sénégal du ñu nangu mu jël droit wu citoyen di ko faagaagal loolu daal la ñu bëgg bëgg wax ñu leen di gërëm loolu ko gis am ne tuuti kàddu ci anglais parce que am ay ay yu fi two minutes. I would like to. Yes, I would like to just say a few words in English because I, I understand there are some uh, uh, some uh, some uh, news uh, that are here that are English speaking. So the, here we are today at the movement for the respect of democracy in Senegal that is brought several, several parties, political parties, members of parliament, uh, former leaders, uh, social justice organizations that are here today, today